Euh, Mamadou Diazaka ñu ngi lay nuyu di la gërëm ci li ñu recevoir fii si ñu bàyyi la nga nuyu ak euh, internet Grand Théâtre point TV. waa maa ngi nuyu internet yi nga xam ne yëpp ñu ngi xool euh, Grand Théâtre muy site boo xam ne site de référence la donc maa ngi leen di nuyu di leen ziar. Mame Ngor dañuy dem directement au but dafa am ay ay propos yoo fi yëkkati woon jëmale ko ci ki nga xam ne moo di moo di Sodav. xaw ci laalaale gisee pen mu mel ni moom euh, tontu na la mais li mu wax ak li nga wax dafa ak li nga nga waxoon dafa am wuti bu bare bare bare bare bare bare ndax mën nga ñëwaat d'abord ci yow li ngay li ngay li ngay li ngay li ngay euh, li ngay li ngay li ngay waxal Sodav waaw ñun xam nga dañu am benn collectif mu nekk ay artistes yoo xam ne c'est des artistes de renommée gis nga nit même boo tegee dara képp ku ci bokk bu fekkee gis na ni loolu ni muy doxee jaarul yoon seen seen seen toogin dañ ko war a defaraat ñun ay artistes lañ ci SODAV la ñu bokk mais ñun génnuñu SODAV de dañu créer benn collectif mais SODAV ci la ñu bokk parce que suñu alal la ñun ñoo ko moom suñu patrimoine la suñu société la donc mu am benn euh, conseil d'administration boo xam ne dafa nekk boo xam ne ñun collectif bi reconnaître ko parce que bi muy bi ñu ko dee fal en 2013 à l'unanimité encore une fois ñun ñëpp ci ànd mais bi ñu demee ba gis ni affaire bi leerul xam nga jàpp nañ ni ay quelques personnes tierces personnes ñoo ci bénéficier wu donc moom ay artistes yoo xam ne osé nañ fëgg taabal bi donc am na ñu bëri ñoo xam ne tey jii dañuy ragal fëgg taabal bi parce que peut-être mën na menacer seen intérêt wala dara production wala ay génn télé wala def lii mais ñun amuñu problème boobu. tey man damay produire damay produire sama bopp bay produire ay artistes donc man amu problème boobu donc am naa liberté mun nga xam ni lépp lu may wax dinaa ko wax wax ko ci ay teggin dafa am ñoo xam ni dañuy dunde musique bi te dundu lu ñu musique bi donc nag benn moment loolu il faut ñu dénoncer ko voilà. Euh, bi nga waxee loolu euh, xel yu bëree bari jàpp ne gise pen ngay waxal moom moom bi nga ko ci interpellé nee na yow rakkam nga frère am nga waaye. Euh, at yi faral di wax loolu mu maam seen kuréel gi ñu si baree baree bare wala boog ñëpp dañoo dundewul seen aar maanaam tey ku fekkoonte ni kenn ku nekk sa business ci côté musique mu ngi dox doo tal nekk di di xaar euh, ñu fay la euh, deux fois wala benn yoon ci année bi. mel daal at yu daanu yi ñoo nekk di casse pour Sodav kii Sodav. voilà xam nga tey boo xee Pape et Cheikh. du du du orchestre bu daanu. soo waxee ñoom Dembel Diop boo waxee yenn musiciens yu mag yi boo waxee Maam Góor man tey yàlla bokk na tabaarkàlla bokk naa ci musiciens yi nga xam ne tey Sénégal ci ñi ci gën a sant yàlla laa bokk parce que yàlla dogal na ni namuma dara niñ koy waxee mooy su ma bëggee génne album sama album génne na y' a pas longtemps ma invité presse bi yëpp ñu ñëw maa ngi def ay concert est-ce que comprendre la c'est que léegi bruit bi nga xam ne moo am peut-être ci mouvance bu bees bi ak ñun c'est c'est différent parce que man je préfère jouer ay soirées acoustiques parce que public bu public bu responsable public bu mag la mënu ma nekk ci tël tël tël tël tël mais ñun suñu musique ñu ngi ciy dund tey jii Sodav bu fekkoon ne juróomi dërëm lañ fay am ñun ñoo ko moom li nga moom ku ko bëgg a jël nga taxaw jàkkaarloog moom ay artiste bu taxawal xam ñun li wax dama ni Guissé Péne moom amul pour wax ci musique parce que il n'est pas artiste du musicien li muy def usurpation de fonction la musique du liggéeyam Guissé Péne nañu wax lan lay liggéey

Mon association métier de la musique bi Zeynul le yor baax ay C'est le reconnaître mais métier de la musique li que fi artiste, artistes bëgg voyager ñuy jaay visa di nax France jël ay ay ñu avons ni mu demee gars dañuy ngay gis ay yu bëgg carte <laughs> métier de la musique nous carte yi mu ni dama ni je lu clair la fii gis nañ fi ay boy yoo xam ne dañuy bëgg a voyager comprendre la ñu ñëw wutal leen carte artiste duñu ay artiste xam nañ ni mu demee ok moom du artiste du musicien sama grand la nag j'ai beaucoup de respect pour lui mais métier bi suñu métier la ñun ay kii xew na ak kii xew na loolu amul sens li am sens mooy métier bi nga def ko di ko pratiquer man tey maam góor même su ma xewatul woon xewuma ah je suis un artiste ku ma tudd le chanteur la mon bu ko tudd lan ngay wax il n'est pas artiste sama grand là, j'ai du respect comme nous, on a ni respect ci man respect boobu jógu fi mais li muy def usurpation de fonction là. il n'est pas artiste il n'est pas musicien ba pare warul taxaw di ministre bi ministre bi tey dafa am ñoo xam ne ay collaborateur directeur am mooy ñoom Aziz ay ñom kundul ñi nga xamni ñep mënu ñu tontu ministre bi dañuy wut seen ben ñaan bo xamni tay ji jii ñew taxaw naan le ministre de la culture bien vrai que ni man waxuma ni ministre c'est le maire hein mais tamit moy suñu ministre tutelle dañ ko respecter tay ji bu ñu demee ba ki kiko wara tontu wala ki wara wax ak mom moy ku mel ni ngóone nga xamni moy jité jiite SODAV wala yu mel non koku mun wax ak moom ñun contre ñun problème personne tax ñu jóg man contre ma Guissé Pène contre ma Aziz Dieng contre ma kundul contre ma ngone Ndour SODAV ni muy doxé moy conseil d'administration bi ni muy doxé mo ñu neexul ñun loolu lañuy ñuy kaas mais ñu leneen

est-ce kon warul warul am noo xaw a doxali tuuti affaire yi xam nga man yàlla dafa dogal ni man benn géer laa xam na la tudd seerafal man seerafal mooy suma géer man awma beneen géer gise nan la mën a nekk ràbb moom ràbb la nan la mën a nekk ràbb nekk sama géer man mu nekk bien vrai que ni nag j'ai rien contre les ràbb bañu ma ràbb contre ma ràbb parce que nit ki mun nga nekk ay affaire caste yooyu man gëw ma ko mais xam naa ni man du ma géwlu ju doom

at soko amé sa xel sax waratul nek ci tok di wax ay wax culture ak ay affaire musique ak ak affaire fecc ak ay xalé bu jigen bu génnee kasse nga ñëw ko kaay ma encadré la mag mu am 70 ans est-ce que comprendre la bo amé juroom ñaar fukki at Serigne Touba bimu fi joggé 75 ans la kon mom dama ne kilifa yu mag yoy bimu fi dee joggé juroomi at lañ ko magee kon mom mu ngi ci dernier tournant donc tay ji liko war moy dem ci jakkay ak jumaa sama grand la j'ai beaucoup de respect bi na xalaat ni yàlla dee dafay am te moom sunu grand la dañ ko respecté na jël kurusam du dóor ay sabadoor te bàyyi jiinee ñuulam bi gérer ay affaire am xam ne ñun sunu grand la dañ ko respecté mag nag bu amee cër moo ko may boppam voilà euh,